mais tey jii nii appel bu may lancé tey jii nii ci seen bëgg tey jii nii AS Pikine ñoom nañ ko wane ci lii parce que tamit bëgg nekkul ci wax ko kese équipe bi dafa soxla ay moyens te nit ki boo bëggee tamit ci li ngay li ngay wax lu ñu naan dëkk boo fa ñëwee jëfoo ci waxoo ci da ngaa seetaan si tey ñun supporter AS Pikine waruñu nekk tey jii nii ñoo xam ne dañu seetaan parce que championnat Sénégal dañ koy wax haut et fort ah ñun ñooy seul club boo xamante ni ak Casa Sport fépp fu ñuy suñu équipe di dem bu geesoo gis ay supporter am comme tey ni les moments difficiles yi nii la ñuy woo supporteru Pikine yi tey ci li ni nga xamanteni moy mooy Express bi ñu parce que tamit dans 10 jours ñu am ci 144 000 man xeeb naa ko parce que ben 50 000 bi ben nit a ko joxee kon tey ni nii supporteru Pikine yi ñoom nañ wane seen bopp ci plateforme bi 15 jours lañu waxone waxoon manam dañu wara verser 2 millions 500. bon comme man ni ma ko waxé tout à l'heure rek ñun gëm nañu février amna am te mi ngi fi.

te bon peut-être am na ñenn ñoo xam ne peut-être gëmuñu feebar bi comme ni nga ko waxee mais ñun à notre niveau gëm nañu lii lu réel la lu am la te buñ ñu ko permettre woon tamit jàpp naa ñun dañ jël suñu mesure ba loolu lépp dañ ko respecté ci carton yàlla. bu ñu ne équipe dañuy joué à huis clos nag mooy que euh, recettes yi doon dugg yi nga xamante ne billetterie bi moo ko doon dugal dootul amati donc sur ce nous avons jugé de de nous organiser quoi. Euh, ñoom ñu amoon idée boo xam ne dañ koy proposé mu nekkoon idée boo xamante ne idée bu bu simple la rek bu simple la par rapport ak euh, plateforme Kopar Express bi ñu jugé woon nécessaire que pour pourquoi pas à chaque fois bu ñuy euh, bu bu Pikine waree jouer recevoir fii nii 1000 francs ak 2000 yi nga xamante ne dañ ko doon jël di ko dagg billet ñu wu de sorte que nit ki dina toog këram bañ déplacé wu mais dina participer pour nga xamante ne équipe bi yenn problème yu jànkonteel du ko du du ko du du du feeñ donc nous avons c'est nécessaire d'organiser une collecte de 15 jours chaque quinzaine bu organiser quinzaine recevoir organiser 1000 euh, francs 2000 5000 am partager ci réseaux sociaux presque euh, WhatsApp Facebook à travers l'eau ñuy lancer un appel à tous les Pikinois ñu ñëw jàpp si loolu noonu parce que nekk na loo xamante situation bu ñuy bu bu ñu te il faut ñu jéem a xool nu ñu jaayantee ba nga xamante ne li li nga xamante ne ñoo apporter ñu continuer di ko apporter te euh, règle nga xamantene dañ ko dañ ko établir pour euh, xeex euh, jàngoro bi ñu ñu ñu mën ko respecter.